Sénégal TV mbokk internet ñi ngi leen nuyu di leen ziar den balu ak den leen ak den leen wax macha allah maa ngi fi ci Mbour euh sét ci Talla Diop ñi wajal la laanu met euh ñu jóge ci ay exploit yu doy war Talla Diop jóge ci Boy Ndour Boy Ndour Arsenal Arsenal Damel ñu def ci liggéey bu am solo fi ci Béjiri Akhlou Badri tay nak dama ñew pour ñu waxtaan ci liggéey bobu Talla maa ci sa ñi ngi lay fay wa ci sa ñi ngi lay fay waaw vraiment di am mbégte contentement uh-huh. à chaque fois nak man mom lima wax rek sànq uh-huh. bu ma gisee lu baax damay bëgg ñëpp xam ko uh-huh. wala ñëpp yëg ko mm. ba man cee jariñu mm. ndax euh, sàng nii rek damay joxe exemple uh-huh. dama alsantam bi dama jaay benn repas repas bi ma ñu compté ko semaine mu baax macha allah ma félicité leen ci émission bi ñu doon def lancé waale nag appel di leen wax dëgg yàlla repas bi mu fi joxe mu baax na uh-huh. à chaque fois barki dem ma joxaat la beneen exemple waaw dama dem kër Latir gis fa xar yi ñu rafet vraiment muy liggéey liggéey mucc ayib ma bëggoon a xëy non Latif Latif waaw waaw ma ñëw ma bëggoon ko pour wax lu baax rek. waaw lu baax li ngay def yow ma naa loolu ci yow quoi. damay jéem a mu yaatu. waaw parce que bi xëyee dama bëggoon moom mu contacter la au moins nga ñëw bergerie nga def fa émission. waaw parce que tey jii nee naa la kii di man kii di Ndeye Ami kii di Paaseen vraiment mën nu laa fay donte yëkkati naa xar bu jigéen jox la bu jari million yàlla def na ci barke jur na juraat juraat seex tëbuwaat mais damay ñaan yàlla mu gën a barkeel ndax mayuma la ko. Mhm. parce que yaa ko fi liggéey. du chance mérite la. laa du met daaw ba la. promotion laa du met daaw ba vraiment ah, li nga nu defal ñun mën nu la koo fay. Mhm. moo tax tax na ba yow it sa émission damay bëgg képp koo xam xam naa la nga investir ci xar rek war ngaa mën a taxaw këram génneel koy xaram ah jaar fa nga daan jaar rek ba yàlla gën cee teg barki dal. macha allah di kontaan loolu ci liggéey li nga wax ni ci Latir euh, Latir il faut ma dem këram moom xam nga moom foog nga temps dafa dafa def ay recrutement yu diis. waaw ah. mel ni Idaali Mbacke non fi foofu il faut ma defal benn journée. déggoo bër keroog ñooñu añ. bu ñu añee pare jàkkaarloog champion mu wax ma loolu la ko tëjee. non non ah? daa xew ci jamono. ah xew ci jamono parce que jamono ju nekk ak kay xew la. muy xiir muy xiir xam nga jamono. ju ak kay xew. la fi la fi Mbaling la fi Arena Laadum la fi woon. waaw waaw. tey jii. Uh-huh. jàpp naa ni guddi ñu hmm. vraiment Latir moom macha allah. ku fa dem kontaan. macha allah mais nag mais nag euh, dafa dafa dafa yàgg liggéey ci càmm nag. waaw waaw mais damay wax rek xarit ba may wax ak benn waay léegi nii. sama benn cousin bu nekk Dakar. Sidi Gaye man di ko nuyu au passage. dafay jënd benn jeune mal. waaw ni ma kañ lay fer ma ne ko sëñ bi. Uh-huh. man xar. Uh-huh. bin ma dénk. Uh-huh. ak bi ma moom ak bi ma moomul. ñëpp benn traitement bi la. man dama gëm ni jur ku leen teral yàlla teral la kon boo xaru jàmbur ak xar bu dëkkul sama kër laa yemale kon boog sa jeune mâle bi nga fi jënd hmm. damay ñaan yàlla yàlla na barkeel ah. mais nag jàppal ni ba fii ak mi ngi ci kër gi du am différence ak samay xar kon boog vraiment doomu arsenal bi laa ko jaay macha allah hmm. léegi ñëw ci arsenal ak suñu ginnaaw damel bi nga xam ne moom mooy champion bi toj foire nañ ci ñëw euh, liggéey fan la toll production kër gi tey hmm. kan moo ko téye waaw vraiment lima wax rek man dafa am lo xamanteni mom la gëm xar concours am doole yoy yep baxna mais man dal vraiment euh, li nga nit ki nak limu bëgg rek. Mm-hmm. la ko yalla lay fay. Mm-hmm. bu koy yalla lay defal ci la koy defal. parce que style xaru ñom Arsenal yi man mom ñom la bëgg. ndax gis nga Boy Ndour nima ci liggéey won liggéey bu muccu ayib def na ko ci Arsenal mi lu fi papaam defon rek mi ngi ci yoonu def lu ko raw. mais nak nitit man mal bala mu gëm day produire parce que damel malgré mi ngi doon jël ay trophée mais nak ba tey jii pour man dafa wara def lo xamanteni li luma convaincre la té à l'heure actuelle mom vraiment il m'a convaincu mo teb na fi lu tollo 10 femelles fi mu est-ce que am lu fi wàcc lu ñu boole koog nag ak domam mi ngi fi nga nan ma amna lu fi wàcc jeex na bu paree ñu wan la doomam kon bok vraiment uh-huh. man mom lima gëm uh-huh. mal bu nan mal mal mal mal dafa wara jur waaye man a man a concours té juro hmm. koku mom amu njariñ mal nak man lima ci gis priorité avant tout production la suñ bokk vraiment Arsenal ak papam ak Damel vraiment am nañ ci mbégte contentement di ci sant yàlla bu baax a baax. macha allah kon euh, Arsenal mi ngi nii suñu ginnaaw. léegi Talla hmm. Arsenal di doomu Boy Ndour. Hmm. Euh, mu juddu nekkoon mbota bu doy waar. Hmm. tey fii mu toll di nañ ni mu dégagé ci auto ci LCS. Arsenal fan la toll lan la defagum ci bergerie waaw li mu def ci bergerie bi moom yàlla na yàlla gën a barkeel mu continuer fi mu ko teg fi la. Mm-hmm. ndax defe naa ni papaam bi ñu ko fiy coow booy nduur ku ne xam marqué na empreinte am ci élevage. Mm-hmm. mais tey ji doon R plus un la papaam tabaxoon. waaw moom dafa ni papa comme yow ci R plus un nga mën a ah. xaaral ma defal la R plus trois foofu la Arsenal ci tënk. Ah. noonu la ko yàlla defee ci moom. kon instant bi mun naa am production Arsenal tey non ak tuuti ci production damel non damay bañ ñu catu ko. Ah. production am. ni rek ma ñu euh, non li di nga di nga di gis léegi nii incha allah. mu am ñaata mois. waaw ne nii mi ngi judd woon le onze août. kon bok le 11 août prochain ci lay am 2 ans uh-huh. kon bok à l'heure actuelle defena ni septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril hmm uh-huh. kon mi ci 20 mois fim ni mi ci 20 mois arsenal mi ngi ci 20 mois mo xam ben xarit bu nan ibrahima dieu ñoo bokku redde naissance hmm. may na ko hmm. euh, legi arsenal 11 20 euh, euh, mois ma sha Allah defena ni tay ko gis war nga apprécier parce que bu avez li ñuy wax ci laadu primaire hmm. laadu mm. arsenal da ko am waaw rafet gudd rëy waaw rëy moom ñëwagul mais dina ko def incha allah waaw mais beauté bi nag waaw beauté bi moom vraiment non moom mbir yàlla la xar bi moom li may wax rek à chaque fois mbir dina toll foo xamante ni keroog bi fi mu mujjee mook euh, Pa Ousmane maam Cheikh ñu def fi benn émission waaw vraiment euh, lattukaa bi wax ci wax yi éleveur bu mag waaw ni ma lu mu deful rek ci yow la waaw ni ma nag day chance ci yow ma ni ko nag defe naa ma ni bàkkuwuma du chance mérite la parce que dama yéene nit ñi jàmm te dama koy répété waat ñii fi toog li ma leen yéene yàlla na ma yàlla fay loolu te muy lu dëggu ci man kon boog vraiment ah, jàpp naa ni nit lu mu war a mën a am waaj rek waaw war naa ko man doomam damay indil léegi indil taawam bi bi ngi foofu na indi taawu Arsenal ah. Arsenal la ngi nii macha allah indil taawam bi indi taawam ñu xool tuuti production Arsenal ñu après ñu dem ci damel nag euh, léegi doom taaw taawam génn na mi ngi noonu taala moom euh, taaw bi ci koo ko teg ak moom mooy kan ak ñaata mois waaw taaw bi neuf mois la am mhm. mooy Ndey Diouf vraiment moom it euh, di xar boo xamante ni vraiment. Uh-huh. li fi Arsenal bi mu njëkkee kii la fi taawloo woon muy benn àjjuma. waaw du ma ko fàtte mu kero bi ma gisee doom ji. kero git sama yaakaar naxu ma woon. Uh-huh. comme li ma gisoon yëg-yëg bi amoon ci papaam ba jënd ko. Uh-huh. parce que nee naa leen am ma xam-xam xar. mais man yëg-yëg la la may doxe loolu la ma yàlla defal ci xar. yëg-yëg ba ma amoon ci Boy Ndour. moom bi mu juddoo ma gis ko. ci yëg-yëg bu karaw amoon naa ko ci Arsenal. kon boog vraiment lii bu ko fi defee. du ma bett waaye nag yëpp it koy sant yàlla. macha allah parce que c' est pas que yàlla dalay defal benn mbir nga bëgg ni force la. Mhm. kon boog yëg-yëg boobu daal dañuy ñaan yàlla xar bu ma yëg ba la ma ci doon yëg. Mhm. nga gis nga nga bu ñëwee rek nga gis ko ci. kon boog li mu def nii moom. ah vraiment sedd na. xol lool keneen beneen doomam wala. Ah, am na beneen génnal beneen. léegi kii tey boo ko doon croisé nii koo koy teg. non am na waxtaan bi waxtaan nañ ci sàng. Ah. ndax euh, maalu latir bi doom madame Cissé bi. waaw waaw ah, kooku moom laa bëgg ñu teg ko ci incha allah. ما شاء الله موي كان لا طالبين ام كان لغي آه، آه، كي اوتور فوم فوم تول وا ميغي تي اي 115 116 يوي نورمالمون ا 20 موا وا ا 20 موا ها ما شاء الله كون كي ورنكو مانا خارا تي كونكور دي تالا واو مي فيم ني nekul mal nekul espoir defatela fokk bim demé feul non comme comme buy dugg 2 ans 20 mois espoir la warana don mais defatela fokk waaw waaw ah, beneen doomam a ngi noonu indi ko indi waaw macha allah ñu ngi ci production euh, Arsenal mbokk Samagal TV Arsenal di doomu Boy Ndour fii ci Belgique ba euh, Ahlul Badri Ahlul Badri eh, ngeen gisoon ba mu nekkee xale ñu jëloon ko fii naa leen woon ay image tey mu ngi ba ci la ci Belgique bi génnewu ko génnewul baa ji waxoon naa ko mu ne mu ne ñaar yëpp lay téye hmm. waaw waaw moom vraiment man maa ko bëggal sama bopp yaa ko bëggal sa bopp waaw parce que yenn saay ah. nit wala di am foo jaar jaar jaar jaar boo am. waaw day am loo xamante ni pour ngeen tàggoo du yomb. waaw parce que Boy Ndour moom defe naa ni ku ne bëgg na ko ku ne ma nga naan man da ko war a séddee. waaw mais moom vraiment dama ko dama ko jël daal. def ko gàllaaju kër gi. Uh-huh. waaw du ma ne nag indi ko nii du ma ne nag du fi ma ne nag du fi jóge. Uh-huh. mais vraiment euh, xar la boo xamante ni daal. Uh-huh. ah tellement bi tellement bi waaw. fii ak mi ngi fi daal. waaw damay am mbégte contentement. macha allah. Hmm. kii boobu doomam la. mooy doomam la kooku mooy Adja Fatou bu kii laa ko eh, tudde bu Diourbel bu Diourbel ah, moom moo nekk nii. moom it. Adja Fatou Seye bër bër bër ki démb ñu ngi ciy wax. Uh-huh. mu naan ma sama turandoo moom man day juuf. Ah. ma ma ma ma ma ma ma ni ko nag. kuraa ci jëmale sa kanam mu dëll. Uh. waaye defe naa ni kële. moom it uh. waay waaw kon moom amagu fi doom bu Arsenal ah am na yu góor yu góor. waaw yu góor yi nag yi mujj a juddu. joxe naa leen. ok ñoom it ñu ngi ci biir fëre gunu sax dèjà. ok Adja waay waaw moom mi ngi ci defe naa moom it le vingt deux la date mi ngi ci ci kii bi mais normalement ay trois quatre mois yi la war a. macha allah waaw koo ma joxaat. Hmm? Ah, mu indi doom bu góor rek. indi ma doom bu góor après waaw Talla. Hmm. Euh, yii yu góor la. Ah? waaw ñii ñooy doom yu ñaar yu génnoon ñaar yu jigéen waaw waaw. yi ci des nag comme gars yi nañ leen te am na ni borom hmm? waaw ñoom ñi ñëpp ay doomu Boy Ndour moo leen jur dama leen a fixé doom Boy Ndour yi jigéen ñoom laa tegaat ci doomu ci Arsenal ah, waaw ok waaw ñu ay doom Boy Ndour nga ay doom ay amul benn boo xam ni da nga ko waaw kële moom mooy rakki nday Diouf jeune mâle bële moom mooy rakki nday Diouf uh-huh. andi jeune mâle bi bàyyi ak kii tënk bi bokk ndey ak bàyyi kii mooy taawam kii moo topp ci moom ñaar ñi ñoo bokk ndey ak bàyyi waaw ok eh. ñoom ñaar ñi ñoo bokk ndey bii moom moo topp ci moom. Eh. ok. moom eh. amagul trois mois am na. ma la wax seen âge exactement. léegi ñu dem ci waaw léegi nañ dem ci Damel. li ma la champion Damel macha allah. vingt neuf mois la concouré. waaw le vingt tabaski bii di ñëw. après tabaski ci lay am trois ans. léegi tey Arsenal euh, doom est-ce am na yu génn yu bari. waaw parce que Arsenal du mag noonu quoi. c'est mhm. que jaay naa doomam yi même yu góor yi. Uh-huh. jaay naa leen. Uh-huh. defe naa ni bu dee yu ci bari femelle yu ci bari danoo tëbu. macha allah damel ngi noonu léegi damel mu ngi nii damel. Euh, nga ni ab tabas bu nu tabaskee lay am. bu nu tabaskee ba mu am deux mois parce que weeru wolof.

ñu teg ko ci magistrat mu jur jigéen ñu teg ko ci ci yaasin mu jur jigéen doomu ca yaasin boobu nag moom moo jur dameel mi mais nag dama ko tegoon ci doomu muxsin ndigal génne ma doom dameel waaw doom rakki ndigal don doomu bachir bu jigéen moom lan teg ci muxsin mu jur ndigal hmm. tegaat ko ci muxsin mu jur mu jur gaynde gaynde boobu nag moom moo jur dameel mi léegi moo jur dameel mi nag léegi nag maal boobu maal boobu vraiment doon xar bu doy waar ndax moom ah nekk papaam xar relève la. waaw boo liggéeyee waaw papaam dama ko joxe addi. waaw euh, bii moom ay quatre mois yooyu sama benn booy laa ko joxoon. fa la juddoo nii mais taawam bi ma nga ko kii mooy taawam kii mooy taawam waaw. ok kii taawal noonu. kii mooy taaw gaynde ña kii mooy waaw moo nekk nii. moom waaw moom tënk la. dëgg la waaw. macha allah moom dafa tëbu nii. waaw tëbu na ci allah da def ko ci Arsenal. allah ah dëgg kon xanaa dugg na ñaata. na fi mu ne léegi mu am un ah, waaw ah allah production gaynde mi ngi noonu. damel damel a ngi noonu. damel euh, champion bi nga xam ni moom moo gagné foiru. moo gañe moo gañe Tiwaawan astafurlah waaw moo gañe moo gañe Touba. Touba ak Ndar ak Ndar. waaw jël deuxième waaw mu jël deuxième. jël fila jël fila deuxième. waaw macha allah quatre def na quatre compétitions. waaw tey it nag vraiment tey Mbour kii gañ parce que xar ko gañe yëpp tey ji xari Mbour lañu. waaw ndax Ninki Nanka mi ngi Mbour. Nimzaat Junior mi ngi Mbour. kon boog vraiment deux mille vingt quatre moom. waaw Mbour waaw wax nga trophée mal yëpp. Uh-huh. ñu ngi fii ci kii bi. te vraiment ñun ñoo bokk nday bokk baay ndax barki démb rek ñun ñëpp Modou Baye fi manqué tey kon book nous sommes unité ya gis nga ni ko yàlla defale waaw ndax coïncidence la ñu daje fi ndax du ñu man maa leen fi woo ok paase comme moo nu yéen a ànd waaw kon boog àdduna lii moom ab seede la ci ah, mais champion bi bi la paase du peewaat hmm. mortal waaw nee naa ko bis du bis du tuuti borom lay tollol kooku noo noo ko gisee waaw xam nga dama ne bis du tuuti borom lay tollol waaw ndax euh, booy tudde da ci am loo xamante ni dina ci joué tour mhm. te yaa dañ koy ñaanal yàlla ah capital mu tuddee woon ma ko tur woowu ma fi jëlee ba taxoon ñu jël si ko ci benn prix bi mhm. yàlla turandoo bii ci topp ni yàlla na ko doublé loolu lañ koy ñaanal te ragal naa ni ah sëtë euh, sëtëm bee moo man maamam moo man papam muy mortala ci ñor kon boog vraiment ñu ngi ko ciy ñaanal yàlla defal ko ci lu kawe njortam ji yaay bin Mustafa macha allah kon euh, ndax it li nuy li ma seq ak moom mhm. da ci yéen a ju da cee am te man moom lépp lu may seq ak nit rek mhm. yéen a da cee am parce que boo ma bëggee sant lu ma mënul dama naan la mënuma te yow xam nga sama jikko yow waaw ah, dëgg la waaw kon daal ay doomu ah, jigéen moom moom damay la am fi doom bu góor doom bu góor bi joxe naa ko joxe nga ko waaw ok kon ñetti jigéen mi ngi fi waaw defe naa doomam bu góor bu fi nekkee uh-huh. ma mu nekk fa te paree goo ci doomam yu góor jëru noo te waaw man ba ci doomu Arsenal yi ñoom ñëpp presque dem nañu c'est bon hmm. hmm. léegi lan mooy base de famille bu nekk euh, Arsenal Damel ci ban base de famille yi ay doomu Boy Ndour waaw parce que doom Boy Ndour ci biir nii dameel moo leen tëb Arsenal moo leen tëboon malheureusement ma bëggoon ci téye ay jigéen mais ay góor lañu ba jur li tax ma naan malheureusement parce que doomi góor yi Arsenal moom bu ma leen tegee ci doom Boy Ndour c'était juste pour ñu amoon jigéen ma mën a téye fixé bi fixé leen foofu téye leen mais nag comme ay góor lañu jur chance ñeneen la te effectivement jeune Mali defe naa ne buñ doon huit la euh, cinq yi jar nañu kon vraiment ñu sante ko yàlla daal xar yi moom ay femelles yi nag yu bokkul ak dara Arsenal bokkul ak dara Boy Ndour ñu ngi noonu ci biir box bi liggéey moom am na fi te bergerie bi war soxla ba trois mâles ba quatre mâles vraiment parce que mâle moom ah. mooy jëmale kanam gétt xar bu baax mal ah. ñoom ñooy def avancement gétt macha allah kon euh, laadu met noo koy waajalee. waaw laadu met moom kuy wàllu yaan sa dëkk daa të sa dëkk tëggul. Uh-huh. ndax fu mënoon di dem vraiment defe naa ni laadu met moom ah, ñun danoo yëmu rek ci fii lan dëkk ndax nit fa mu dëkkit boo da nga leen a war a sagal sargal sa bopp sargal leen. Uh-huh. kon boog laadu met moom vraiment ñu ngi koy préparé tey ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ci jàmm ba bu kenn am benn ndop. Uh-huh. loolu la ñuy ñaan yàlla dal macha allah waaye nag laadu met bi comme na ma ko daan wax yéexati ñàkk la hmm. waaye bii moom vraiment ñëpp koy xaar nga jël ñaata box waaw ah, non dinañ jël trois box ah, macha allah waaw ah. macha allah kon foofu moom Bergerie Akhlou Badi ku bëgg ku bëgg a xool liggéey war nga si mën a ñëw quoi léegi tey après nag léegi lan nga bëgg def comme mu nekk surtout Bergerie Akhlou Badi ginnaaw damel euh, liggéey na ci côté compétition hmm. euh, Arsenal liggéey ci côté production parce que hmm. boo xool moo gën a produire tey relève bi lan lan nga xalaat. waaw Arsenal moo gën a produire mooy comme li ma la wax rek man lu may wax koy gëm. waaw ah. parce que maal bi ma demee ba gis ñetti doomam yi jigéen yi ak bu góor bi fi jóge ah. ci laay nag jot na moom mu liggéey. Ah. moo tax ma jël doom booy nduuru jigéen ñi. lu tollook huit moom it ma jox leen dameel moom moo leen tëb. am na yeneen xar yoo xamante ni tëb na leen te bokkut te famille yu mag yi. donc vraiment ah liggéey bi daal defe naa ne ñu ngi koy teg ci xel. ak xalaat macha waaw ah, taala mhm. nag euh, léegi yii def naa moom la fi Boy Ndour bàyyi. waaw sama lii non non yii bii. bii waaw ah. ak Boy Ndour dara. waaw ah. kii doomu Njàmme la. Njàmme dañoo jëloon café Touba moom lañ tegoon ci Carlo di mu jur mu sëñ Galas Amina moom it ñu di ko nuyu Mbacke Balla. moom moo croisé woon euh, Carlo di. ak café Touba. ok mu jur góor mu joxoon ko sëñ Saliou Mbacke Kébémer sëñ bi tamit ma di ko nuyu Mbacke Balla vraiment moom participer na ci élevage yu bergerie Ahlul Badri yi. macha allah parce que seen papa. ok kon sëñ ko jox. sëñ Gallas moom moo ko joxoon sëñ Saliou. sëñ Saliou bu Kébémer sëñ Saliou bu ah, Kébémer moom moo yëkkati papa. sëñ moom ko seetiwaat fan yii. moom moo yëkkati papa yi kii jox ma ko. bergerie Almarax. macha allah ah, mu vraiment mooy li may wax it. Hmm. participation ci ñaan. waaw ci jàppale. Hmm. ci saa yu rek baatin daal ci hmm. gàttal. sëñ bi dugal na ci loxoom ci élevage yu kër gi. macha allah ndax kii papam sëñ bee ko yëkkati jox ma ko ma liggéey ci ba xar bi fii la daanoo ci kër gi. macha allah te xar bi defe naan ba mu koy jënd xar ba mu jëndee ay millions la. macha allah moom laa jël ma teg ko ci benn famille bu ma paaseen joxoon. Ah. mu bokkoon ak laaw la cet ak yaayu capital ñoo ñoo bokk benn bàyyi ñoom xar yooyu. macha nga xamante ni waa kër général lañu woon. doom boo gi weex bi parce que weexaay bi ci général lañ ko jëlee. macha allah général nag mooy maami euh, euh, roi Salomon général ku ko déggulit ku ko xamul dégg nga ko. macha allah moo doon benn xar bu exception. femelle boobu laa jëloon ma teg ko ci njàmme mu jur kii kon boo xar bi moom sore naa xar yi ci kër gi. mi ngi ñaata porté. moom mi ngi ci troisième porté fi mu ne nii. ko tëb ñoom ñëpp ñoom ñi ñoo dul keneen ñoo dul ni ma la waaw kii kii tamit kii rak kii dameel la mook dameel ñoo bokk bàyyi ah, moom it dama jëloon doomu taw féex bu jigéen moom laa tegoon ci gaynde uh-huh. mu jur kii mais xar bi moom wax dëgg yàlla spécial am moom mok boy ndour mom déggoo gi nu déggoo vraiment mhm. xar la bo xam chiffre d'affaires bi ma ci def ah, ndax kon moom mook booy def nañ ay production def nanu jigen ma joxe ko mu defati jigen ma joxe ko te ñaar yep ñi ngi Dakar benn bi ma ngi ko jox sama benn xarit bu tuddu Ibrahima Diaw benen bi ci def ma jox ko Cheikh Ibrahima Diop yenen bi ci def ma jox wa bu gi mo geewul mu jurat ay cheikh ma doon ko làq ndànd nit jaar fa. ñew yanu xar yooyu yobulen leen. macha allah mais nak benn doom bu jigen bi mom ma nga Dakar xamna dina ko récupérer. mom hmm. fortune momit moko tepp tay ñu ci vraiment di remercier Abdou Fall. macha allah muy nit ku bax borom fortune. Ah, momit doom bu jigen bobu fortune moko ko tëb. ñaata mo mu ñewat ma tegaat ko ci Boy Ndour pour une quatrième fois. mu def fi cheikh yu goor yo xamanteni ni vraiment élevage bépp ñi ngi leen doon ciow fan yi macha allah benn cheikh bi nak dem na Touba mom la ñu waa ji moom lay dugal mi ngi ko tuddee xat xitma xitma waaw moom la ko tuddee seexandoo bi nag mi ngi ci kaw ndax bëggoon naa koo joxe mais ñëpp dañ ni ma daal xar boobu seex bi ci def moom nan ko xaar kon boog vraiment Arsenal la ko tëb fi mu ne nii ñuy xaar yàlla na def ñu am foog ni dina def résultat bu raw bi papa am doon def ak papa macha allah kon daal base de famille bi tamit ñu ngi fi waaw ñebe bi nii moom it li ma lay wax waaw doomu njàmme bu jigéen waaw bi ma jëlee Paat Diop. Ah. doomu gaynde la woon. Mhm. ma jël ko teg ko ci njàmme. Mhm. mu jur jigéen. waaw ah. léegi nag Paat euh, Diop moomu tamit nekkoon xar boo xamante ni. Mhm. ci kër gi. Euh, euh, Faat Diop moomu moom laa jël ma teg ko ci njàmme. waaw mu jur mu jur yaayu kii. waaw yaayu kii nag kële laa ko jox muy nimba mee toog. waaw moom laa yëkkati femelle boobu jox ko ko. moom it kii yor na rakkam boo xamante ni booy nduura ko jur. parce que kii. doomu saxiir la saxiir bu mam Cheikh Ndiaye ñebbe bi sama bi mu dendal noir bi mu dendal ah, noir bi doomu roi Bachir direct la ah, mom rakki sa ah, doomu sal sal ngari bi ni ciow ki rakam la robu noir bob wa robu noir mom la jele ci procureur Elias momit vraiment. di xar bo xamanteni uh-huh. ah bima ko fay jele ah jele na ko fa. amone yakar ci mom wa yalla tasul yakar ji parce que jur ak dom boy ak boy ndour waaw tëng bu doy war bu extraordinaire. mo nek nonou waaw euh, cuulul bi bi mooy ah, doomu teranga bi moom moom it vraiment moom moo liggéey liggéey bu am solo ci doomu teranga la waaw cuulul bi doomu teranga la moom doom boskoo bu jigéen hmm. moom la ñu jël ñu teg ko ci teranga hmm. mu jur euh, cuulul ba macha allah moom na ak yaay Arsenal laa jëndandoo woon hmm. indi leen fi ñu di ñaari mbote yi soog a fer macha waaye nag ñoom ñaar moom vraiment seen résultat moom waxuma la kër gi mais am participé nañ ci élevage Sénégal macha allah ah, andi waaw andi ko moo nekkoon daal ci ci ci ci ngay tourné waat euh, pour liggéey ak euh, Arsenal ak Damel. Ah. waaw parce que ñii. Uh-huh. ay jabari Arsenal la ñu. Uh-huh. Damel moom dañ koy bàyyeeg euh, Damel mooy tëb waa kër Boy Ndour waaw ak tëng yi nga xamante ni am nañ fi une. kon daal li ma mën a dégg mooy. am nañ fi trois trois catégories la. waaw yenn benn série bi. Arsenal mo len mom ah. ben série bi Boy Ndour ah, ak Damel mo len mom Damel mo len waaw yeneen yi ci def nak ah. Boy Ndour it mi ngi ci kër gi. Uh-huh. ah momit it ba tey ñu koy joxat chance am parce que vraiment doomam yi mom hmm. Arsenal mi ngi jur Damel mi ngi jur mais Boy Ndour mom vraiment waxul ben xalé banal ak yalla wa ma sha allah kon mom Boy Ndour mi ngi tëb ba léegi. moom mi ngi tëb te fan yi sax tëb na fi xar yu bari. Hmm. ndax quatre box sang fi. mom mi ngi ñaanal dugg 4 ans. wa amna 4 ans fi ni amna 4 ans jëm 5 ans. momit novembre lay am 5 ans inshallah ma sha allah. ah rafet na kon mbaal femelle baa ngoog euh, bi nga xam ne ñu ngi fii euh, leen tëng yaa ngi ni yi tëng production yi moo ñu waaw ah, kii doomu Arsenal bi la génnoon sànq waaw kii doom Boy Ndour la kële doom Boy Ndour la kii doom Boy Ndour la ñetti tëng yi la yëpp doom Boy Ndour la benn bi doomu Damel la beneen bi mooy doomu Arsenal bi ah, moo tax may la kon fii ci diggante Boy Ndour Arsenal la tëng yi waaw doomu benn doomu Arsenal rek moo ci kii moom génnoon sànq waaw mooy doomu Damel bi waaw ñoom ñett ñi ci def doomu Boy Ndour la waaw kon boo xam nga ni Boy Ndour moom. kon benn Arsenal damay li ci des si Boy Ndour. robu noir bi du Boy Ndour la doomu Boy Ndour la. Ah, allah Boy Ndour de moom fa mu macha allah kon mooy euh, tënk yi ñoo fi nekk lañ toll ñoom. waaw ñoom ñii te tolloo wuñu ndax mi ñoom ñaar moom mi mi ngi ci neuf mois. bële mi ngi ci sept mois. bii ni moo leen gën a ndaw tamit bii ay six mois la am. macha allah bii mi ngi ci quatre mois. macha allah dugal leen ñooñu ubbi leen ñu dugg. macha allah waaw fi nii ñoom ñëpp doom Boy Ndour la ñoom ñii nag dameel moo leen tëb. ñëpp ay doomu ñoom ñëpp doomu duur la waaw. ah ñoom euh, femelle yi ay production boo nduur ay tëng yi yëpp ñoom ñëpp taaw la ñu yor. ñoom ñii ñëpp taaw la ñu yor ñoom ñëpp taaw la ñu yor. ay doomu booy nduur la yor teg nag ci arsenal laa leen tegoon. ñu jur ji ay góor ñoom laa tegaat nag. ci ah, arsenal ñoom ñoom dañoo ànd seen doom yi. waaw après nga tegaale tegaat ci dameel. waaw ci dameel moo leen tëb fi mu ne nii mais seen doom yi. waaw waaw mais instant bi voilà seen taa bi Arsenal moo leen jur. waaw nga léegi nga ñëw euh, deuxième porte bi. deuxième damel moom moo leen moo ah, macha loolu rafet na nga fii ci premier porte bi. ci doomu ci ci booy ci Arsenal. Arsenal waaw deuxième porte bi nga. diversifié jox leen damel waaw. ah très très très très très belle idée ah. macha allah sama gars dañ liggéey baa ngi nii Béchir Akhlou Bary toujours au top euh, bi changé wul mais liggéey bi mi ngi a rafet ah mais doom booy booy Ndour nag booy Ndour defar na base kër gi de. waaw mais xam nga xar bi moom mooy li ma la wax rek dama ko wax ni leen sëñ Cheikh Tidiane ci dani bu ñu yor jikkoy ginaar ndax ginaar dafa gaaw rek mais xar maal buy def lii muy def nii hmm. vraiment boobu xar moom warul laa jéem a pour di géem a gaaw di tàggoog moom kooku dara jëru fa la fay précipité loolu looy daw bay daano pour tàggoog moom ku war wërsëg nekk nag mën nga cee jot mais nag du taxit ñu di ko bazardé wala ndax vraiment ni ma la wax rek booy nduur moom day gàllaaju kër gi hmm. kon bokk gis nga lim fi def gis nga ñetti teung yi te amna ñeneen ñu mu parce que teung yi bi ni joxé nako sama boy bi lay bi nek géraw ah, amna benen domam beulé tamit jox naa ko benn way benn euh, way bu tuddu lobat moko jënd kon bok vraiment ah teung yi rafa nañ sha allah kon dal ñi ñoy euh, ñi ngi xaar ay doomu damel ha ah. li ma naan xar dafa am coloré mhm. ak tour waaw xar bi jamono bi bin may tàggee turandoom. waaw xar bi biir bi moo doon daw. xar bi yàlla nan yàlla musal ci cat. xar bi coow li nga xamante ni yoroon na ko moom mi jamono ji ci turandoo ji faatu biir bu daw bu métti moo ko jàpp ah ca la ko xawoon a citeloo nii mais vraiment muy xar bu doy waar moom da tuddee ko Mamadou Yatta Faye waaw Mamadou doon sama xarit nag mais ñi ñaan yàlla yàlla yàlla yàlla xare àjjana te vraiment yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam ndax euh, amoon na fi place ci àdduna bi waaye nag lu baax yàlla nu ko gën a bëgg yàlla mi ko jël nag ah kon boog ñi ngi ñaan yàlla sunu borom yàlla na ko yàlla xare àjjana turandoom bii tamit ah wax dëgg yàlla dañ koy ñaanal daal mu gën a gudd fan turandoom ndax euh, bu dee barke moom turandoom amoon na kon boog kii di gayit ñi ngi koy ñaanal yàlla xar bi euh, yaakaar bi mu am yàlla bu yaakaar jooju tas macha allah si liggéey xam naa naa ko seeti kontaan nañ daal. waaw Cissé moom dégg may la fii di la nous sommes en partenariat. parce que kër gi sa kër nee naa la tey parti euh, bergerie bi hmm, bu ko ñëpp xamee. yàlla da koo jaarale ci yow. Mhm. du du budul woon lépp it mais quatre vingt wala cinquante soixante pour cent yi yàlla ci yow la ko jaarale. ba ba ñu nekk nag ci benn lancé boo xamante ni parce que investir ci xar mhm. baax na mais tamit ngeen wut. communication bu jaar yoon bu mm. tegu ci yoon dafa am solo macha allah kon boog ñi am chance o dajeeg Cissé ja sama gaal TV vraiment koo dégg danaan ma sa digganteeg Cissé dafa rafet dafa rafet adduna nag noonu la te yenn saa yi ñu waxante dëgg jàppante yenn saa yi ñu xuloo ñu kii mais nag adduna noonu la parce que buñ fi nekkee warul nuy raayalante yi dëgg la àdduna noonu la ki nga jàpp nag nit ki dafa ñëw ni sëriñ bi sunu daayira bi da ñaanal nu ci ndax ban ko sosee ba tey ah jafe-jafe musuñu koo am kenn musunoo xeex musunoo xuloo sëñ bi ni ko bu ngeen demee na ngeen tax daayira ba eh. parce que kon dëgg lalu ko dëgg la daayira bu ngeen sas ay ati at musu leena xulo musu leena xex xeex demal ngeen tax daayira ba ndax dëgg la ah waaw dëgg la waye ma No yow lu no no. No, buñ ko waxé mu jeex non non non julli non dama ko tuddé jappanté rek mais du jappanté dara ndax eh, xam nga rek content hmm. na taal ah. merci kon di ñaan yalla waaw té ñi lay ñaanal li ni yalla na na dem ba nek télévision té am nan yàqin ah li nga wax tay ji ni sànq yaa yaayaa defal na la ko keneen ku bari bari na dul yaayaa kese wala du taala jóob kese am na ñu bari am na nu yéene defal la li la taala job defal wala lu la yaayaa defal day loo xamante ni nag lu baax it daa jar a ndax ku la defal hmm. dafa defal élevage kon boog maa ngi lancé un alerte yow ak maman Maguette Guissé jox na ma seen allah waaw ndax li may wax expliqué bés bu nekk sama mère boobu euh, du chance mérite la parce que da nga koo liggéey ci élevage hmm. bu la taala jóob fayee yàlla dina la fay bula la yaayaa fayee yàlla dina la fay kula fayul yalla dina la fay kon bok dafa am lo xamanteni nit ki buy def na def yàlla te yàlla tax te fay yalla dafa gën kon dama boog am nañu mbégtee kontaan Omar Sawit moy limay wax rek moo yata saay yalla day tet ñi bax yalla nu gëna bëgg lu bax kon bu jëlé Omar Saw ak melokan bi mu melon ak ñariñ limu amon yata yeta am ko muy ñaar ñoo ñu tuddu rek kon nga xamanteni yalla tamit bëgg na lu bax moy joxé lu bax ba mu neex ko mu jëlat lu bax li kon bok vraiment ñi ngi leen di ñaanal yalla momit yàlla na suuf sedd ci kawam Omar Sow moom vraiment a ah. ah, li mu doon liggéeyal sëñ Touba yàlla na ko sëñ Touba teeru ci àddina firdawsi jërëjëf merci Talla sant euh, toujours égal waaw si c'est àdduna moom yàlla moom moom euh, àdduna bi moom mooy il est naturel et euh, toujours ce que je ressens la jaajëf on est vent kon kontaan nañ numéro bay adresse bi 89 83. kontaan naa.